waaw tey dañu ñëwoon fii visite euh, di xool euh, tolluwaayu liggéey bi nga xamee ne ministère de l'eau et de l'assainissement daf koy daf koy daf koy def ci wàllu xeex inondation ndax euh, si njàppandalu Fonds Vert Climat ak AFD ñoom ñoo jàppale si gouvernement Sénégal mu samp fii ci Diamniadio lu ñuy wax radar radar nag daf di jumtukaay bi nga xam ne tey danañu permettre balaa muy taw daañu xam taw bi nan lay tëddee daañu xam taw bi sax nan la war a toll loolu nag def di lu am solo ci waa ANACIM ndax euh, dana leen permettre ñu mën a xam taw bii ñëw kañ lay ñëw ak nan la war a toll su boobaa yeneen service yëpp ñu mën leen a wax jóg leen jël leen seen matukaay ndax taw bi na wàcc fii ci Ndakaaru wala ci Joal wala ci Mbuur wala ba Tivaouane wala ba Thiès dana ëpp dayo comme ça nit ñi war a mën a bañ a xëy wala nit ñi war a mën a teel a wàcc comme ça ñu mën a jël suñu ay matukaay loolu lañuy wax alerte précoce. radar bi day visionné diggante Dakar ba Joal jàpp Tivaouane donc ndakaaru lépp lay jël lépp lépp lépp lépp fii ba Almadi ak fii ba Joal ak fii ba Tivaouane. ñu xayma ko si ñaari milliards ak ñaar fukk. millions euh, mais nak du pour radar bi rek loolu dañ ko def pour radar bi pour mën surveiller jaww ji mais également inondation dafa am ndox muy ball ci souf donc ñoñu tamit dañ leen ci si ñaari milliards yi am ci seen ay kay yi nga xamné ne yi nga xam ne ñoo gën loru ci li ñuy wax remonter de nap ñu mën leen a ay outils yi nga xamné ñom tamit daañu xam souf ci numuy muy balle ci ndox tey jii am nañ yaakaar ne bu au mois de juin daañu réceptionné radar bi parce que bureau d'étude bi nga nyomnyoko, nyomnyoko ñoom ñoo en liggéey France ñëwoon doon xool euh, déjà li nga xam ne moo war radar bi fan la toll ci wàllu courant bi ci wàllu internet bi alhamdulillah, seen xel dal na gis nañu ne état wu Sénégal jàppale nañu am nañu courant am nañu ndox clôturé nañu même site bi nga xam ne moom moo jël. gis nañ que vraiment bi mu tàmbalee ba mangi wax sank ay jàngoro fi amone sax amatu parce que daaw suñu xalé yi élèves yi nga xamné tol nañ ci ñaari junni amna élèves yo xamné ne dañ ci amone asthme am problème am élèves fi am bronchite am élèves fi am sinusite am yenen xétu jangoro yu ñuy wax maladie respiratoire machallah allah lepp lépp na gis nañ ne tamit surveillant yi fi nekk ak jàngalekat yi professeurs yi administration vraiment nit ñi mel na nit léegi seen farlu ci liggéey bi dafa gën a yokk seen pasteef ci liggéey bi dafa gën a yokk vraiment nit ñi gën nañu am motivation nit ñi gën nañu am taxawaay bu rafet ci liggéey bi